xam nga dama lay jaajëfal bu baax ci question boobu ndax gis nga le monde artisanal fi mu toll nii dañoo yeewu xam nga déggee pire ay nit la premier ba léegi liggéeyuñu ñu continuer mener la combat ak yow loolu yombut nañ xam ne ñu mécanicien démb ak artisan démb ak artisan tey bokkuñu ambition yi bokkuñu ampleur yi bokkuñu bi ñu defee loolu itam. avant ñuy déguerpir ancien PIS jox nañ le gouverneur lettre jox nañ préfet adressé nañ le président de la république ak opposants yeeg ñëpp kenn répondre bi mu jàllee itam def nañ suñu fi mu toll nii dañoo toll ci boo xamante ne mooy li ma doon dañu am concept boo xamante ne comme ni ko dëkk yëpp defee Maroc defal ko ay jeunes dëkkam mhm. Abidjan defal ko ay jeunes de Cameroun def ko ñu xalaatoon la cité de l'automobile boo defaroon plan bi boo def trois d ak yëpp avant ñuy déguerpir ancien piste bi ñu demee boo ak foofu itam ñu daal di xool daal di présenter le projet am nañ ay financement am nañ lépp mhm. fi ñuy xalaate loolu ak fi ñuy pare ci la ñu déguerpir bi ñu déguerpiree comme olof nee na bu ndox tuuroo an bàq moo ca des ma ne leen ñun duñu ñu an bàq opération rootiwaat lañuy def on laa commencé le vendredi passé bale bu ko defar itam dañoo soxla mille électeurs yoo xamante ne ce sont des votants sur les mille électeurs dañoo bëgg ku ne may ñu mille francs muy un milliard muy loo xamante ne commencé nañ ko la première le premier vendredi bi ñu ko defee on avait mille électeurs le deuxième vendredi on a trois mille électeurs plus donc loolu c'est système boo xamante ne ñu ñu ngi koy doxal te xam naa ne itam duñ ci taxaw comme état ñun xam nañ ne ku folu ci réew mi lii moo la fol te ñun nous sommes des citoyens dans ce pays aussi am le droit et le devoir. Mhm. boo xamante ne dañ ko war a exercer ci pays bi. comme état Sénégal mu ñuy seetaan di ñu arbitrer itam boobu ba léegi ñu ngi koy woo ci li ñu koy woo wuyuwuñu ñun am nañ des possibilités yoo xamante ni ñun bu ñu demee ba suba ku ñu faalewul. ci 1000 électeurs ku nekk joxe 1000 francs. mu c'est un million un million d'électeurs dama ne la le départ on avait 1000 cartes yoo xam ne léegi le vendredi passé bii am nañ 3000 te le vendredi bii ñu jëm dinañ évaluer waat carte d'identité yi nga xamante ne ñoom la ndax man mii damay jël sama carte sama carte d'identité soxna sama carte d'identité jërbaat samay carte doom yëpp récupérer leen dans les villages qu'ils ñu envoyé ma ko ma photocopier ko teg ko ndax xam naa ne ak luy monti xew suba itam lu ma leen wax dinañ ko def. c'est quoi le but? pour wane ne xam nga tey jii nii je pense que je pense que y' a manque de considération li ñuy def manque de consi ma ma ma <laughs> candidat non ñun parrainé wuñu kenn candidat wuñu kenn ni l'opposition ni le pouvoir. que soit clair. am na léegi jàmbur yi ngay jël pour lan la. jël suñuy quarante lañ jël. da ngeen ko téye. waaw maanaam doo leen voté kenn doo leen. ànd ak kenn ñun parrainé wuñu kenn dinañ voté. c' est un devoir dinañ voté waaye actuellement. parrainé wuñu opposition parrainé wuñu pouvoir. c'est intelligent hein. Hmm? comme comme stratégie <laughs> waaw parrainé wuñu opposition parrainé pouvoir ñun suñu yëfu bopp la ñu yor muy loo xamante ne dañ ko lancé muy challenge bu bees so dinañ ko doxal kuñ ci may loxo dinañ ci dem kuñ ci may loxo dinañ ci dem xalaatu ñoo dem fenn itam. ndax laa mécanique tey jii nii mënoo def ay estade biir dakaar def fi ay université defu li ne ba pare te mënoo fee def. Mhm. lieu boo xamante ne c'est la mé c'est pour la mécanique. Ah, ñun fii la ñu xalaat aussi comme état déguerpir nañu ba pare. fan ngeen fii ci ancien piste bi. Mm. y a ectare la ba bas pourquoi état bu déguerpir ba pare mënul jël six hectares mu jox ko les mécaniciens def ko des garages modernes organiser ko comme ni ko yeneen dëkk di defee bu fekkente ne ñu fa mu xool aux alentours fii nga xamante ne mooy corniche bi. Mm. pourtant des corps koy jox ci réew mi. te ñooñu ay dëkkuwaay rek lañ koy def mais fii boo ko joxee ouvrier bëgg jox leen ci corniche non dañuy jox fii ba pare bu ñu fi xajul ñu jox ñu fële mais ñun xalaat gis nga jam ñaajo loolu du solution ñoom ñi ko wax sax am na ci ñoo xamante ne ci administration yi la ñuy liggéey ñëw nañ foofu mais xam nañ ne loolu mënta nekk mënoo oto paan dix mille francs mais oto bi paan dix mille francs nekk fii Wakaam nga war a jenn pièce fii dix mille francs war nga ko lengeeb cinquante mille francs pour dem ak moom jàmm ñaajo ah, anarchie bi day yokku ndax dañuy koy fekk fi mu taxaw ci mbedd mi ñu kirij ko fa yekkati ko liggéey ko kon li ñuy def nii du xalaat nañu jéem a xool li nga xamante ni mooy le point fort ñu dugal mécaniciens yi fii liñ fi mën a dugal ñeneen ñi recaser leen foo xamante ne soriwul Dakar suuf si am na fi mhm.